bëre ci sénégalais yi ñi nga xam ne ni dañuy ñaawlu yéexaayu yenn àtte yi ndax ay jafe-jafe rek la leen di jural. ah lu métti la ci ñëpp askan wépp da ngay war a liggéey say bokk fu ne lan lay wooyee jàpp ne jàmm amul ci réew mi. su procès amee kay ñun suñu liggéey yëpp ay yàq gis nga déemu procès bi am na ñun suñu añ sax mënul ñëw ndax cag-cag amul. yii la àtte rawatina ñeel Ousmane Sonko. day faral di tagga tembe seen i liggéey. bu nit ñi déggee ni projet am na tey xam nga rek niñ ko daan dundee temps yàlla dañuy foone noonu la ba léegi kenn nangoo ñëw nga paas nga ñëw nga paas nga dellu nga ndékki nga añ nga def yëpp nga jënd fekk yow jaayoo kenn xam nga loolu moom noppalewul autorité préfectorale bi di faral di tere dawal moto mu de mbir moo xam ne ni yii la dawalkat dañ koy ñaawlu. liggéey moo tax a jóg dañuy liggéey mais yow yi daw ah? ato yi daw lu leen daw nga ne borom moto daw loolu moo ma jaaxal ba léegi chaque jour démb rek li nu jàpp ci moto da xam lu mu toll te moto bu ñu jàpp ne da ngay fay 12000 bu la jàppee ne 12000 ngay fay yow yàqoo taaloo defoo dara liggéey rek ngay def liggéey ngay def ay waxtu rek des ngir ñu joxe dogal ci mbirum coowal radiation Ousmane Sonko ci liste électorale yi yii la jaaykat yu nekk marché Sandaga bëgg ñu jeexal bi la dossier ba ku ne mën a wóyal sa liggéey. ñoom li war a mën a dimbalee Sénégal yëpp. ñu àtte kenn ko ne xam foo féete suy bokk mu bokk bu fekkee du bokk du bokk. jëf yi yàgg na tamit na ci ñëpp kon bu nu sañoon ñu àttal ni àtte rek yëf yi jeex ñëpp nekk ci jàmm. tribunal hors bu Dakar dana joxe dogalam ci alxamis bi ngir ñu xam ba xam maire bu Ziguinchor bi dana delluwaat ci liste électorale yi am déet te sax bu ñu joxe dogal boobu ñaari pàcc yëpp mën nañoo dem ca cour suprême mu di beneen étape bu nar a guddal. bii le atte